nii la ah, xam nga bu nga dóor da war a yóbbu ngam bi ni nga war a def tak gis nga boobu boobu da nga yóbbu ngam bi day mbéj mbéj rang mu wàcc nga dóor ra mu jóg ci kaw nii la nii doo def ni nii ra mu jóg donc noonu booy xeex nii xam nga Macky Sall ak ponkalaayam rang mu wàcc kak mu dugg kak mu wàcc maa ngi gis gars yi naan nii nii non kenn nii non nii ki ngeen di def nii non da ngeen di fecc wala lan non gis ngeen Sonko boo leen bi nu mu wàccee c'est noonu la booy dóor rak Macky Sall di dof doflu tak tak tak faaj kanam gi ne waaj bu ñu wàcce noonu moo tax boo gisee Sonko di dóor bu muy dóor bopp bi dafa wàcc gis naa ngeen di dóor naan nii kenn di def noonu bopp bi da ngay couvrir sa bopp bi gis nga nu mu couvrir bopp bi bu muy dóor nii te naturellement la ko dóor dafa couvrir la bopp bi ça montre que kii day pratiquer arts martiaux Sonko day pratiquer arts martiaux parce que da nga gis bopp bi nu mu tukkee fu dugal dafa wàcc bopp bi donc mi ngi couvrir bopp bi di sànni booy dóor doo ne nii da ngay couvrir dóor wa wa wa wa mun naaw let's go